binau atun mil 1988 medina di am baneen xar kanam bu yees ginaaw ab mouvement set setal buñ fi amaloon ci yooyu li jamono boobule taxawaay yi amoon ngir taaral yenn ci gox ko xat yi ci biir ndakaaru ñu mënoon ci nemeeku ay place yu ñu rafetal ci ay peinture boobule mouvement nekk daal di feeñal laneen lu bees lu ñuy wax graffiti l'origine du graffiti et l'origine de l'humanité dañoo link Parce que quand on parle des chercheurs qui te parlent de l'Union qui grotti, euh, les peintures rupestres, qui te retracent l'existence de l'humanité. Intelligence, la transmission est importante pour créer la mémoire. C'est très important. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont su l'immortaliser sur des surfaces qui étaient les grottes. Il y a eu l'avènement de cette cétale. en 88. Euh, te seet seetal nañ ni Ndakaaru jamono yooyu ni mu meloon ci salte kenn xamuloon nu mu toll. mouvement bi ko lancé woon te soutenir woon ci euh, ASC e yi doon leen wax ni euh, ASC e bu nekk dafa war a seetal quartier. donc ASC bu ñu koy sétal li ñuy def mooy peinture de peinture de ci amoon solo parce que la peinture est synonyme de propreté. naam sax ba mu nekkee lu siiwul lool ci yenn gox yi graffiti nekk na loo xam ni moo ngi yëngu ci wàllum aar mu bari lool nag ci li nga xam ne si nii moo ngi ci daal di yëngu lu ci mel ni xeexal wala sax ñaawlu ci seen i nataal yi ni jafe-jafe askan bi. le graffiti c'est une expression libre artistique consciente fait par des gens qui sont conscients de ce qui tourne autour d'eux bi mu Sénégal rek dafa engagé directement donc képp ku ci nekk branche bu nekk engagé parce que da ngay loolu ngay dund quotidiennement muy metti nga koy dund muy neex nga koy dund. tu peux pas avoir outil sensible comme non qui est le graffiti donc mettre au au comment ça s'appelle euh, au profit des populations il faut l'exploiter. Aujourd'hui, jii ñi leen di am taxawaay saa yu ñu ne moo ko ay jafe-jafe jëm ci politique cette vie c'est le quotidien que quand ça va pas politiquement il faut en parler quand ça va pas éducativement il faut en parler la santé quand ça traîne il faut en parler la sécurité et puis le propre quotidien bi population bi il faut qu'on soit conscient que ñun ñooy bu pour ñun donc des c'est des atouts.

dindi mbalé bi dindi saw yi xam nga peinture ko def def def ci fresque yi def ci fresque bo xam tam day jàngale. que mun nga dem fi ben mur Colobane fekk fa nit ñi difa tour ndox difa sànni ay mbalit et tout la première chose à faire c'est de nettoyer ce mur là ce geste là c'est il est porteur de message avant tout cest à dire montrer que li suñu environnement la bu ko sétalul buñu buñu bu ñu ko bu ko en fait du am sens. L'année lu am solo ci graffiti na ci ak am solo sensibilisation éducation. le but c'était que les gens comprennent que le graffiti c'est un outil qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle le mouvement hip-hop mais qui est très sensible et qui apporte aussi une autre démarche qui est de sensibiliser conscientiser les populations en sachant que les gens yi nga autour de ton œuvre tu n'es pas plus intelligent, tu n'as pas plus d'informations que tu as juste un outil que tu maîtrises plus que. Mais ni orienté, ni partager te fait te rend particulier. Ce qui fait que le graffiti, est tel qu'elle est. ni comme comme ni nga ko gars wax mën nañu ko japp arme arme d'instruction massive la maanaam arme bo xam jangale jàngale la. ñii di graffeur yi saa ñu nepp di amal sini natal ñu mën ci gis ak rafetaay bu jéggi dayo mu daal di jafe lool ngir nga romb te doo ci sànni say geut le graphe avec les formes des couleurs, l'esthétique et tout ça. Sur même les couleurs, tu as du chromothérapie qui fait que certains, quand ils sont en face de certaines couleurs, la femme émotion pour créer Positif ou négatif, mais une émotion pour créer L'enfant qui va à l'école, qui passe devant l'œuvre, si le message est bien défini, ça l'interpelle. Le père de famille qui quitte chez lui pour aller au travail, qui, a, qui vit des situations telles que tous les pères de famille ou tous les responsables de famille, devant un mur où le message pour le parent est clair, sal touche. fi ñu tollu nak askan bi di gis seeni bopp ci bu baax baax ci li di graffiti. jamono ji ñu ne nga xamni ni ma presque perte de repère dafa dafa xaw de dewaat Sénégal Manam jaru liggéey yi manam day indiwaat jeunesse bi parce que dina leen jangal lu bari ci lu gatt manam livre la rek livre bo xamni livre livre livre livre livre urbain lay doon rek. mok mok tok ce livre di jang mo mm, ben la. bu la yalla dimbalé nga di mak yow sa xel liggéey loolu dañu tubarkal la nga ñëw fekk lu mel ni lu war a exposé nga ñëw exposé ko wëlbati ku dagga ci nga tàggay ne kenn ku ne xam ne tubaar kàlla comme moom pour nga mën a jàkkaarloo moom di ko defar njàccaar ngay doon. kii dafa am njàngale njàngale ci nekk te tubarkal la képp ku bëgg a jàng boo dikkee nga jàng. ba pare sur le plan environnemental sax dana taaral lu bari. nataal lu ba pare gars yi lu ginnaaw njariñ yi làqatu ci yile nataal du nag nag ñenn ci askan bi am jafe-jafe ngir làqarti wala sax jàng fi ni araf ak ni muy bindoo. lettrage yi nañ fexe ba lettrage yi nekk loo xam ne nii jaamu yàlla yi dinañ ko mën a lire ndax lii ay leçon la ndax leçon boo koy jox da ngay da ngay da ngay def bind bu leer ñiy romb mun ko lire xam ne ah ñii lii la ñuy jàngal ndax graphe da xam ne am na. lettrage dafa am am na lettrage simple am na while lettrage moom mooy lettrage bu grave bi nga xam ne xam nga grave grave si boppam sax day romb du ko mën liir ndax ni ko dugalantee noonu loolu loolu boo xool message bi nga bëgg a jàllale du dem carrément mais boo defee lettrage simple yi bu liiree dina ah kon ñuy message yi lay jàllale ah lii am na solo de il y a ce qu'on appelle les lettrages lettrage C'est mooy bind yi euh, voilà et tout parfois di nga euh, un peu de mal à ce que lire la cible c'est pas que les gens qui savent lire la cible c'est toute personne qui regarde qui voit la fresque donc il am a xamante ni ñu koy de vie. dessins qui sont matérialiser en euh, en euh, voilà en image ce que disent les lettrages. Qui dit docteur bokk ci njaboote graffiti si sunum réew ak i bitim réew moom jàpp na ni seenub bindin ni mu faral di mel bokk ci liy jox seenub liggéey gi ci le flow de l'artiste c'est normal ça c'est l'identité artistique le graffiti c'est ainsi c'est c'est différents styles quand tu parles de white style c'est les lettres mêlées ou certains disent les lettres sauvages. Ça, c'est artistique, ça, c'est normal, ça, c'est la création de l'artiste. Ça, c'est l'expression. Parce que le lettrage est très important, c'est un élément clé du graffiti. Mais le graffiti, c'est tout un ensemble. Tu as le lettrage, tu as des, des, du figuratif, tu as des backgrounds qui fait une entité. Le graffiti d'avant style. On prend les lettres académiques, on les rend très artistiques, qui fait que tout en chacun, charme tu peut attirer déjà pour ah, quel est le message contenu donc l'esthétique de chacun parce qu'il y a des messages yene message tu as pas besoin que la lettre soit super artistique mais stylée ça dépend qu'est-ce que tu veux dire et comment la personne le graffeur qui fait ce message là fan le coup le graffiti il faut que le le parce qu'il peut être violent sur la forme, et sur le contenu, il soit très doux. Il peut être très doux sur la forme et sur le contenu très violent. Pourquoi je dis ça Un message, c'est poignant. Mais ça, vue, à vue ça ne dérange pas. C'est la douceur qui, va avec. Mais le message, ce n'est pas doux, un petit message. Parce que quand on parle, de, euh, quand on parle de ce qui s'est passé mars dernier, et tu passes devant, c'est violent ou c'est doux, mais le message est poignant. On te parle de la situation des handicaps. C'est ce je vivent avec des handicaps dans la société. On fait une fresque dessus. Le message est doux et poignant. L'ol moi beauté bi graffiti bi dans l'éducation. micro donc c'est ça notre participation par rapport à la chose, au-delà de cette passion. Nam sax ñom li ñuy wax lettrage bi ñuy indi ay gàllankoor ci seenu liggéey waaye docteur ak kii ñoñam di jël li ñuy jàppee ak ub mayal ngir mën di xeexal seenub askan. ndax gars bu ñu demee ba ñooñ ñëw def loolu kon message bi ñoom xam nga am na am na nu mu leen def quoi kon kon kon kon kon kon day day confirmer li ñu wax léegi mooy maay c'est pour sensibiliser dénoncer xam boo dénoncé dara ki nga xam ne nii moom la concerné si bu defee réaction la xamal ne xam xamal ne yëg na ko quoi kon message bi jàll na. gileem bu bu nag ñu daal di sol ngir xeexal seenub askan ci biir seeni nataal yenn saa yi du ñàkk ñu teg baaraam ci lu neexul suñuy njiit luy indi kontaan teg ñi di graffeur yi ñoom di jàpp ne seeni message jàll na bu baax lu mënul tamit indi benn yoon gàllankoor ci seenub liggéey. quand tu parles d'une chose boo xam ne ça dérange certains ça va les déranger. Ils vont tout faire pour que l'on disparaisse parce que ça les dérange. Chacun a la manière de, donner son message. Et les messages qu'on met tout sur le mur, <laughs> c'est du nyoplenaire. Hein? Du Les politiques, ils ont leur agenda. Ils ont une manière de voir le monde. Si tu n'es pas en concordance avec eux, guys, nous on fait partie de la population, on est les populations. On est, on est les patrons. Quand on nous demande à gérer et tu nous fais des choses qu'on ne comprend pas, on te les dit sur mille manières. Les rapports, ils ont fait des sons. Les graphos ils ont fait des fresques. C'est pas parce qu'on a parlé de cette manifestation, ça ne date pas d'aujourd'hui. On parle de, on parle de la politique, on parle de l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, c'est pas souvent tendre. Mais des femmes aspect il faut faut tenir compte on parle avec toutes les couches sociales donc on a l'air nous ne encaisser mais frein mënul am am tax frein mënul am mënul fii di fee et avec les nouvelles technologies dara mënul disparaître. jamono yi ñu tollu ñu bari ci ñoom dugg ci graffiti ndax ak cofeel tay ñi lay du ñu xamal ni ñoo ngi ciy gis seeni bopp bu baax a baax ci wàllum koom. liggéey la c'est un travail c'est un travail boo xamante ne nii euh, boo liggéeyul pour euh, pour lenn en fait yaa ngi liggéeyal sa bopp en fait yangi ngi sa bop té lépp lo gis entreprise la da ngay entreprendre di def dara pour mëna am dara. je pense que bu fekkonte ne xam nga nit bo nekk ci lo xamanténi ne fayu la da ngay gis mu gaaw génn dem ci leneen neen fayul facture en fait donc euh, eh na ben, alhamdoulillah si on s'organise on vit de ça moi je vis de mon de mon art je vis du graffiti et du man rek graffeur yi nga xam ne xam naa ils vivent de ça mom lañuy dundé mom lañuy xey bien sûr. C'est juste une organisation. Pour mon quand les artistes ont vu par de notre art, moi je dis il faut s'organiser. Vous avez 100 francs par jour, voilà 100 francs par 2, par 4, 5 jours, 6 jours, même si c'est pas rigolo, mais organise-toi de telle sorte que 100 francs, il monde pérenne. Et en plus de ça, dans toute chose dans le monde, il faut avoir une vision anticipée sur l'avenir. C'est quoi C'est que tu es dans une chose, mais <laughs> li tax ñuy wax business c'est investir sur les choses, poser sur les choses, avoir une vision large de ce que tu fais. C'est pas parce qu'un artiste, je fais mes tableaux, je m'arrête là. Tes tableaux te font rentrer d'argent. Mais développe-le. Fais travailler l'argent. Que l'argent travaille pour toi.